mel ni ku gag waaye gaguma ndax sëriñ Souhaïbou Saliou Cissé ndax ñu ko seq la am na ñoo xam ne sëriñ sëriñ Saliou lañ ko xame am ci ñoo xam ne xam nañ ne doomi sëriñ Mor Mbaye Cissé la waaye sa waajur wa daa doon koo xam ne boo toggee di wax du jaaxal kenn dafa am bi sëriñ Saliou jaar fa diggante takkusaan ak timis yàlla dogal na keroog maa ngi woon ci ba mu dugg di nuyoog sëñ bi ñii bëgg nootu timis xam nga ca moom ca sañ-sañ ba ak fulla sëñ bi jékki-jékki na ko sëñ bi da ngaa defee na xawma la waaye man xam naa le de ndax yaay kooka sëñ Moray wax de na ko yaay kooka ndax gis naa kooka doonub sondeel tàkk ba ba jeex tàkk te gisaatuma fu mu génne teg ci ne ko gis naa kooka génn këram génn ci barabam dugg sa kër te ma fu mu génne daan na ko nag fii nag boo fi boo fi jamajee ku lay gàgganti te ñu ngi waaj noddu timis te ngaa dem sa kër booy jum juma fa wallahi al sëñ bi bi muy génn Baye Matar Sylla mi ngi noddu bi muy toll ci daaneel la sëñ bi gaare keroog Baye Thierno Fall Baye Thierno Kane bi ñëwee ci mbaar mi lan la si gaade gi sëñ bi bi mu jullee sël bi mu jullee timis ba sëlmal wala les mi dafa geesu na Cheikh Thierno dafa ëppam dafa yees sëñ Thierno ne ko mbàkki lépp mat na nga xam ne mi ngi naa ba xam ndax dafa julli ñaar raka wala ñetti raka yi mat na keroog sëñ Thierno Kane lii la ko tontu kon xanaa wax ji waaw sëñ bi waxoon sëñ sëñ moor muy si xanaa loolu delsi na moo tax ca way wa dañoo wax ne kii moo di kooka te kookaay kooka wax la ju wér ndax wet di dus du bokk foofu laa mën a yem sëriñ bu kon ñu dikk ak yow ci ni ngay toogee ci sëriñ bi ak ni ngay waxtaan ak sëriñ bi ku la gis xel yëpp demaat ci sëriñ Touba sëriñ Saliou Mbacké nga gën ñoo fàttali sëriñ bi rawatina ci ay objectif ay bëgg-bëggam daana génne di doxantu ay ngoon bu jaaree fii tey penku boo liggéey mu jaar càmmoñ boo liggéey mu jaar feneen fu ñu ko miinee mu teg foofa di jaay fekk na booba doxuntu doon rek mi ngi doon xool mbedd yi plan moo ko fi dàq boo ñëwoon sax ban ko sa kër ne nangam mu ne la boo ko defee woon nii ak nii jant bu xëyee di dugg wala jant bu bu sewut nangam loolu sëriñ bee ci man ku ne am na ci loo xam ne suñu borom may na la nga am ci loo diisoog moom ci ay bëgg-bëggam yi bëggoon ci dëkk bi rawatina loolu loo na ciy mën a baaxee te man ciy gën a jariñu ngir bàyyi xel Serigne Saliou fi mu woon ak ni mu bëggee woon Touba mel ni incha allah bisimilah. jërëjëf sëñ Afia bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa bi moom sëñ Afia comme ni nga ko jotale alhamdulilah day mel ni bu ñu tëddee suñuy jëwriñ sëñ Abi bu Jóob mm-hmm. siyaar ko ndax mooy kilifa jataay bi mm-hmm. dana mën a yóbbaale kilifa yi fi teew yëpp ak ñiy yëglu te egseeguñu mm-hmm. xanaa di sant rek di tey gërëm sëriñ Habib ci waxtaan bu am solo wi nga xamante ni indil nañu ko ci sëriñ Saliou mhm. te moom kenn ku nekk xam na ne lépp lu mu wax ci sëriñ Saliou rek lu wér la ndax musa tàggoo ak moom ci ndawam ba ci magam mhm. boole ko nag am xam-xam boole ko tamit bu baax meññi ko muy Cheikh Mahamadou Lamine Diop Dagana nga xam ne képp ku xam sëriñ Touba rek xam nga ko ak moom mm. kon lim ñuy wax dégg nañ ko njariñ la loo xamante ne danañ ko jariñoo waaye tamit làmmiñam bi mu jógee tamit muy doon loo xam dañ koy barkeeloo mhm. sëriñ Cheikh Diouf tamit ñu koy sant bu baax ci jataay bu am solo bi ak waxtaan bu am solo bi mu leeral ci sëriñ bi ci sëriñ bi ci boppam fi mu jaar ak ni mu jàngee ak ni mu jàngalee ak ni mu yare muy waxtaan boo xam ne tamit am na solo lool loo xam ne mënees na koy jariñu bu baax a baax jërëjëf sëñ Xaafiya xam naa ne li nga wax sëriñ Saliou moom dañ ciy barkeelu rek comme ni ñu ko doon defee at mu bëgg gi bëgg Tuubaa moom loolu daa bokk ci moom ndax ndax day sëriñ bi te sëriñ bi Tuubaa rek la bëggoon yitte jëm ci amoon ak lim ko jaraloon tamit loolu du kenn umpule mhm. danañ ci barkeelu buñ ci barkeeloo tamit Tuubaa ndegam ci biir réew mi la Mm-hmm. ñu wax tamit yéene ji mu aman ci réew mi ak ni mu bëggee woon réew mi ak réew mi tolluwaay yi mu toll mm-hmm. Mm-hmm. bu ñu noppee tamit barkeelu ci xew-xew bi nga xam ne daa xew ci jamono muy ndaw ñëpp jógandoo mel ni ñu topp géej gi ñu topp mbedd yi fas yéene génn réew mi di wuti njariñ dëgg la ñu xool tamit sëriñ Saliou diggam ak ndaw ñi ndegam moom sëriñ bi rek lañu bëgg tamit ñu fàttali leen sëriñ bi ni mu doon doxee yooyu tamit ñu bàyyi ko xel diggam Touba moom yitte ji mu ci am ba mu doonee sëñ Touba jamono ji nekk dama koy faral di nettali dama ne leen sëriñ bi njëkk muy doon sëñ Touba man nañ ne mës a génn dara mës a génn sëriñ bi waaye nag ndegam daa amoon ay kilifa ci liggéey boppam la nekkoon liggéey boppam mooy lan mooy samp ay daara alxuraan ngir màggale ko way juróom wu tedd wa mi nga xamante ne daa yéene def métier jàngale te am ci gàllankoor moom mu fas yéene loolu nag mu def ko muy ndigalam di am di mbiram fas yéene tamit tàggat doomi jullit ñi ak doomi taalibe yi ñu ko jox ànd ak ñoom dugg àll bi. Hmm. di toj ay njëndi di fa liggéeyal yàlla waaye la mu fay liggéeyal yàlla lépp tamit da koy delloowaat ci ay kilifaam yi fi nekkoon ku fi mën a nekk sëñ mas a nekk sëñ Tuubaa lu mas a liggéey jox na la ko. sëñ Abibou Diop mii nett la nañu fi daaw lu am solo nee na Alaaji Maysa Sekk ca Thiès moo ko nettali mhm. ca jamono yu yàgg yoo xamante ne ni kenn mënta bay fukki bërigo nee na booba sëriñ bi peese na junniy bërigo def ko addiyey Cheikh sëriñ Fallilou Mbacké def ko ci liggéey sëñ Touba bi kon loolu kenn ku ne xam ne moom fi loolu la ma sa dekk waaye nag ba mu ñëwee ba doon sëñ Touba nag li ñoroon sëñ bi nag li gi sëñ Saliou def nag moom kenn ku nekk mën na cee teg bët damay wax ne daaray alxuraan yi niñ toll ci Touba njëkk sëriñ bi di doon sëñ Touba jumaa yi ni mu fi tolloon njëkk sëñ bi di doon sëñ Touba njàngum xasida ni mu fi melan njëkk sëñ bi di doon sëñ Touba sëñ bi doonee sëñ ba di dem àjjana na yooyee ñett yooyee mel ci dëkk bi <laughs> kenn ku ne xam na bay na ci waar woo xamante ne nii kenn xamul nu mu <laughs> ndax sëñ bi njëkk muy nekk sëñ Touba jumaa yi ci dëkk bi dañ ko doon lim dañ naan jumaay Touba ne jumaay Daaru Xuddoos ne jumaay Gédé ne jumaay euh, daara xalimul xabir boo ko limee daanaka du mat fukki jumaa mhm. mu ngoog nag kon saga bi mi ngi noonu mu ngoog waaye nag sañu moom bi mu ñëwee yor liggéey boobu fas yéene ko yeesal ba mu fiy jógee lu ëpp ñaar téeméeri jumaa am na ki dëkk bi yu julli ak juma mhm. kon kooku kenn ku ne xam ne ne moom xam na ab cëram te liggéey na ci liggéey boo xam ne ñëpp teg nañ ci bët Mm-hmm. jàngam xasida dañ daa wax waa ka sëñ Abdou naan waa ka sëñ sàmba waa kër waa waa waa Daaru Muxti nga xam ne ñooy jàngkat yi siiw yi nga xamante ne nii ñoom lañ daa ñoom lañ daa wax waaye sëñ bi bi mu ñëwee ba soññi murid yi ci jàngam xasida tasaare daayira yi nga xamante ne nii ngir sawarloo taalibe yi boo ñëwee ne sëñ bi turu daayira lu mu sonn sonn lu mu mën a def day daal di jóg jëlu kayit jël big bi ci loxo boppam bindal la turu daayira ngir soññ soññ taalibe yi ci ci loolu léegi xoolal nag sëriñ bi moom bi mu fi bàyyi ko di wégi suñu borom njàngum xasida nu mu mel ci réew mi <laughs> ndax waa Sacré-Cœur waa Daaru Musi lañ leen a jàq dàq jàng déedéet waa kër sëñ Massamba ndax dañoo dàq jàng waa Yoof déedéet foo dem ci réew mi fu hmm. nit jëkkatee xasida rek da ngay jàpp na ci kuréel yi njëkkee la woon wallaahi loolu nag loolu waaye mën a wax loolu ab liggéeyam wallaahi ndeysaan alxuraan hmm. kenn ku nekk xam ne na sëñ bi moo daran moo daran moo daran moo daran léppam sëñ moom daraam génnul alxuraan waaye ki ne hmm. waaye nag sëriñ Saliou li mu def ci njàngom alxuraan nga xamante ne dañ ne ba nga fi bàyyi koo bàyyi nga fi lu mat ñaar fukki daara ak juróom ndax xel koom rek fukki daara juróom la nga boole daara yi ci sowu ba boole daara yi ci penk bi boole daara yi ci biir tuubaa ñuy jàng alxuraan yemuñ ci jàng alxuraan nga di leen dundal di leen takkali soxna mhm. di leen ngénteel mhm. di leen faj waaye loolu nag ndax kenn mas na ko def amul ci àdduna ci àdduna wallahi wallahi wallahi ak maanaam soññ gi mu soññ nit ñi ci bëgg alxuraan woote bi mu woote toole bi yëpp na indi leen gone yi loolu nag gis ngeen résultat bi mu jur tey ci Touba. ak ci réew mi ba njàngam alxuraan ni ko ak ñëpp fabuwaate fonk ko te loolu tamit liggéey na ci liggéey bu am solo waaye nag dëkkub sëñ bi yi nga xamante ne mooy Touba damay faral di wax na sëñ bi bi muy ñëw Touba dafa amoon lu ko tënk tënk bi gën a mag mooy dafa am ay quartier cosaan yu fi nekkoon yoo xamante ne ñooy dëkk bi danga nga naan daaru Xuddus daaru Minnan ne Guédé euh, ne Soura wax ay quartier quartier yoo xamante ni quartier yoo xam ne dafa am fu mu woon rek waaye amul mu yem maanaam Daaru Xuddoos day màgg rek lu fa sës rek mu yokk ci muy Daaru Xuddoos Daaru Minam mhm. tamit day màgg rek mhm. lu ko sës rek yokk ci mhm. màgg lu ko sës rek yokk ci di Guédé waaye sëñ bi mu ñëwee lim njëkk a quartier yëpp nag fañ fa mu fekk da leen faa yemale xare moom quartier benn ay quartier yu yees sosé yoo xamante ne nii li sëñ Tuubaa defoon nga xamante ne nii bi mu ñëwee tur yu baax moo ñu ko tànnal am na tur yoo xamante ne nii kenn daawu ko dégg njëkk moom moo ko tasaare ci réew mi muy turi lislaam li sëñ Tuubaa doon def dëkk yu baax kenn ku ne sa dëkk da nga ko daan tuddee daaru nangam boo santee Jóob ne daaru Jóob wala nga ne kër nangam Jóob wala kër nga ne Njaay mm-hmm. waaye nag ay dëkk yu baax nag Touba Daarul Mannaan Daarul Minam maanaam loolu sëñ bee ko indi ci ci ci ci ci ci ci réew mi mhm. sëñ bi nag quartier yooyu yëpp nag mu yaasal ko ba ci bii ñu toll bii ñu nekk ci la bokk mu tuddee ko jànnatu naxiim mhm. gis nga tur yu rafet yooyu leneen lim solo sim indi nga xamante ne bu ko sëñ bi defutoon tey jii jafe-jafe bu mag dana am mooy quartier yooyu yëpp nag ña fa nekkoon yilif ko xalif général de Mouride moom yoonam newu ci woon ndax quartier bu nekk amoon na borom waaye nag sëñ bi quartier yu bees yi mu def nag moom ku fi nekkal sëñ Touba rek yaa yilif quartier yooyu nga sañ fay def sañ fay dindi sañ fay yokk sañ fay loolu nag tey bu amutoon tey ci dëkk bi kon tey fu waa dëkk bi jëm ndeysaan ndeysaan ñor gi mu ko ñoroon nag ñor gi mu ko ñoroon nga xam ne loo xamante ne nii dama koy nettali ndax toujours nettali day am seere mhm. bi ñuy dafa am ay nekk fi nga xam sëñ bi ni mu bàyyee xel jamono booba autoroute bi amagul woon ay suuf yoo xamante ay nit dañ koo dëkke woon mu ne nañ ko nañ ko nangu ndax dañ faa war a def rond-point yu mag ndax ëllëg ak si biir xàll wiy ndakaaru foofa lay jaar si mhm, mhm. am ñaari kilifa yu ko moom kenn ki sëñ Mbàkke soxna loola kenn ki du ma tudd turam ndax ñoom ñaar nañ nañ doxale ca yónnent ba daa bokkul sëñ bi ne boo demee nga ne sëñ Mbàkke soxna loola suufam soosu day dama ko ko bëgg a wàññi ndax dafa am lu ma fay waajal yoo xamante ne ni ay ay yoon yu mag yu ñëw ëllëg la mhm, fekk boobu sëñ Mbàkke soxna loola ku ñuy wax sëñ Moor ñaan la dénk quartier boobu ak foofu mooy bàyyi Abdou Fatah ñaan mhm. Abdou Fatah ñaan ñu bëri xam nañ ko ci Ndakaaru mhm. ak ci sëñ Mbàkke mhm. ma dem ci sëñ Mor ñaan wax ko ko ne ko sëñ bi ne moo ma waxan ne ma ndax booba sëñ Mbàkke dama waxan bu la sëñ bi yónneetee te luy lu jàmp mën ngaa yem ci Mor ñaan ma ñëw ma ñëw wax ko ko waaye sëñ Mor ñaan nag ne ma loolu moom demee na noo xamante ne nii faaw damay dem ba ke sëñ Mbàkke ma leeral ko ko bi mu demee mu ñëw mu ne ma dem naa gi sëñ Mbàkke de sëñ Mbàkke li mu wax mooy sooy bu Siise bu ñëwatee ne la sëñ bi nee na bu lu ma ko laaj la mu la wax rek def ko am keneen kilifa gu ma yónni ne ma boo demee ne kat suufam soosee dama faa soxla nangam kilifa gën ma tappale yi ngeen di def sëñ bi bu leen yónnee ngeen di tappale daan bëgg a jël sëñ bi nii daana waa baax na xëy si suba si jot mu xëy si sëñ bi waaye keroog maanaam bi mu tàmbalee maanaam gis na sëñ bi melokaan melo woo xam ne xam naa ba xamee sëñ bi ba tey moom mës a sëñ bi ci melokaan woowu ne ko sama liggéey bi ngeen di yàllankoor bu ngeen bëggee gàllankoor man du ma ko ndax fii kenn amu fi dara keroog sëñ bi baat bu mu daawul utilise baat bu mu daawul jëfandikoo sama baay sama waajur maanaam baat bu fii sëñ bee moom lépp dal ci kawam dal yoo xamante ne nii maanaam sëñ bi ba mu génnee tiitaange tiitaange tiit na tiitaange joo xamante ne nii lépp nag loolu la ngir dëkk bi ñor gum ko ñor dëkk bi ñor ko ñor waaye nag léegi nag xoolal nag kon ñu war a sant yàlla bu baax dalal xel ndax Cheikh Mahamadul Muntaxa mi nga xamante ne nii mooy Cheikh Sëñ Touba ca tànk yooyu rek la jaar ndax moom tamit kenn ku ne gis na ne yitte yi dëkk bi ni mu koy yitteele mébéti sëñ Saliou yooyu tamit nam koy soññee ak nam cey nam cey nam cey nam cey dage lu nekk kon nag waa réew mi nga xamante ne ñun ñoo dëkk Touba muy taalibe yi muy ndaw ñi war nañoo bàyyi xel loolu nga xamante ne nii mooy sëñ mun Mountakha bëgg ci dëkk bi te du dara lu dul yar nit ñi soññi leen ci gën a bëgg dëkk bi soññi leen tamit ñu fonk dëkk bi ak songi leen tamit li fi sëriñ Saliou naaroon muy ay projet di ay mbedd ñu bañ koo sakk bañ koo def dara sëñ Mountakha ki loolu rek la nekk yàlla nañ ko ñu ngi koy ñaanal suñu borom may ko ngi ndam waaye taalibe bu nekk xam na tamit loolu bu egsee ci yow mu xam ne suñu njariñal bopp la loo xamante ni dañ cee war a góorgóorlu